jërëjëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ci plateau RTT TV ci défilé bu mag bi nga xam ne moom la ñuy defee ci manufacture des arts euh, délégation yi di jóge fu nekk di ñëw ñu ngi ak délégation marché Grand Caisse euh, Khadim Fall ñu ngi lay nuyu. waaw Serigne Khadim ñu ngi lay fay bu baax. di la bàyyi nga nuyoo présenté délégation bi nga àndal. alhamdulilah salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. di la nuyu bu baax a baax waaye nag di jaajëfal RTT bi nga xam ne mooy suñu télé. Euh, di kontaan bu baax di ñaan ci yàlla rek yàlla suñu ñu ci tawféex bu baax ci mu jëm ca kanam si bu tedd bii nag nga xam ne moom rek la am muy le 24 décembre bi nga xam ne dañ koy def chaque année. Mm-hmm. te nañ ko di ñaan ci yàlla yàlla nañ ko fekkee at yu bari Euh, di ñaan rek suñu participant bi nga xam ne moo taxoon ñu teew tey suñu borom defal ko ci lu kawe njortam incha allah lu kawe njortu Grand ñu gis ngeen ñëw def délégation. Euh, mën nga ñu présenter délégation bi kan ak waaw délégation bi ñu àndal tey jii ñu ngi ànd ak délégation bu forte délégation. bu jógee Grand Thiès. ànd ci vice président Abdou Diodio. Euh, président l' organisation Babacar Faye. communicateur coordonnateur Khalifa Diop. Euh, nga jàkkaarloo euh, Mamadou Fall moom Mamadou Fall adjoint adjoint trésorier incha allah waaw. jërëjëf muy mel ni délégation marché Grand Thiès moo nekk noonu ki ko jiite di Khadim Fall nan ngeen jàng tey huitième édition bi nga xam ne mooy défilé regroupement des tailleurs de la région de Thiès. dafa mel ni tey da ngeen a ñëw sax indi am ku ngeen indi. pour mu présenter. waaw dañoo ñëw am ku ñu indi mu war a dem ci défilé bi mu présenté wu hmm. waaye nag ñu ñëw surtout soutenir ko ngir li nga xam ne moom lañ ci moom ñu dajale fii tey défilé bi hmm. di naan ñaan rek incha allah rabbi ndam li nga xam ne tey moom la ñuy sàkku suñu borom jox ko hmm. ndax tey ñëw na ak eh, yeneeni yeneen i bagage yeneen i bagage waaw dafa mel ne xale ngeen indi sax parce que ni ma ko gisee xam nga xale dañuy xajam waaw waaw dañoo doy waar dañoo moom jamono sax ñoom fu ne nii bañ nañ ba caat lañ koy woowee caat caat kooku kon nam naa doy waar kooku caat déréglé moom lu ñu yàqu moo ko yàq lépp lu a garaaw moo ci gën a déréglé moo tax buñ ko ko fii tey jii tey waxuma sama caat mi nekk RTT nag ah, ah, waxuma moom caat moom ku yem ci ay loxo ah, la waaye seen caat mi ngeen indi damay ragal mu rajaxe fii de. yow eh, bu ñu demee ba ci kanam incha allah rabi suñu xaadim. ah dinañ gis loo xam ne lu mucc ayib la doon. incha alhamdulilah kon nañ leen bàyyi rek ngeen àgg ci biir incha allah. incha allah jërëjëf Grand Thiès jërëjëf ñu bàyyi.